cow fas yooyu ñu rey technopole fees ko ñu fekk fa der yeeg yooyu euh, yàgg na fee am xëy na kay euh, dañu bëgg rek autorités yi gën a taxawaat seen taxawaay parce que population bi ñoo exposé consommateurs yi ñoo exposé fi mu nekk nii région de Dakar bu ñu ne 70 pour cent yàpp yàpp bi ñuy jaay bu ñor ak bu ñorul lu tolloog 70 pour cent yi mu ngi jóge ci wàllu yàpp clandestin yàppu abattage corruption yàpp medd mooy recyclage cadavre d'animaux ak yàpp boo xamante ne rey nañ ko abattoir mu génn mais manque de conservation bi tax na ba mu nëpp moom la ñu jaay askan bi ba tey na kenn amatul wér marché yi gën a mag nag yi buñ koy rey duñ ko reyee sogaas ñu ngi koy reyee abattoiru Tëngéej abattage bi guddi lay xew mairie Tëngéej ak euh, vétérinaire yi ñoo def link boobu ñoo luye abattoir bi xëcc ay boucher def ak ñoom corruption ñuy rey nag yi ñu koy inspecté foofu te abattoir bi capacité 47 bëf la te kenn du def inspection de nuit abattage clandestin bi ngay dégg ñoom ñoo ko créé dibiteri yi lu mu gàtt gàtt ak yeneen marché yi dinañ collecter plus de un million par jour ñoom vétérinaires yi gérer mi yi bokk ministère de l' élevage war a gérer askan bi ñooy def loolu. tey jii li jëm ci abattoir yi bi nekk abattoiru Dakar dañ ko loué ay hommes d' affaires ñooñu ñu ngi tudd société de gestion des abattoirs du Sénégal muy SOGAS SA ay homme d'affaires la ñu jël boucher waroon liggéey ci abattoir vétérinaire yi ñoo jël abattoir bi loué ko xawma 6 millions abattoir bi dina liggéey lu mu gàtt gàtt 3 millions ñu recrité quelques bouchers même fas yi ñuy rey ñoom ñoo am ay bouchers yu ñu recrité pour ñuy mën a rey fas kon lépp li xew muy mbaam sëf ya amoon ak fas yi ñuy tudd ci benn périmètre la nekk muy périmètre SOGAS boobu la nekk jàpp mbaam sëf bi loolu ñu def muy dakaar actu muy seen TV muy 2STV yéen journaliste yi yëpp ngeen baal ma euh, waa Sogas ndax nañ leen dribble nañ leen c'est normal parce que seen métier mooy ngeen yëkkati jox kane ci acteur ba mu wax mais dam leen di wax tey histoire bi nan la demee ñii leneen leen taxoon jóg mais Euh, defe naa yàpp ak ay chinois loolu amul ñoom dañ doon abattre ay mbaam sëf chaque jour camion yi dinañ indi trois cent à trois cent cinquante ba quatre cent mbaam sëf ay camion maliens sax dañ ci daan bokk. biir Sogas la entre fin deux mille deux début 2016 mooy période référendum bi. léegi bu ñu reyee ñun li ñu jaaxal mooy bëccëg gi dañuy rey guddi gi dañuy rey mais am na benn oto gëlë-gëlë boo xamante ne bu ñu ko dugalee ci euh, genre conteneur bi gëlë-gëlë boobu moo koy yóbbu ñu ñun ñu préparé doon ko bëgg a wone ñu daal dañoo jékki saa rek dégg ay rey na ñaari mbaam technopole ñu wanaan ñu ay mbaam ñu ay ñu rey fële euh, Papengeen mais ñu doon wax ci affaire bi sax man ñu xaw ma leen ñooñu dañ leen waroon o oh, interpellé leen parce que kenn ki nee na fois mbaam day rey nit te loolu mise en scène la dañ defar seen yëf ba pare oleen leen yéen journalistes ne leen am na lu xew yéen boo ñëwee li ngeen mën a def wane li xew mais exactement ni leen rouler yéen comprendre leen ko donc Sogas dafa war a ñëwaat ñu toogaat def tetaat à comme man nee naa leen yàpp bi li ngeen rey ëpp na 18000 mbaam sëf ngeen désossé ko abaa yi maanaam mbax yi gisuñu ko foie yi gisuñu ko yéel yi gisuñu ko déggoon nañ nag ci chinois soxla nañ der mais yàpp bi yéen a ko jël di tax nag ma comprendre mooy conférence de presse bi nga xamante ne dañ ko def biir Sogas. nee nañu ñoom am na douze camions yoo xamante ne euh, jóge nañu fële bu ci nekk def vingt tonnes yàpp jóge Mali dugg Sénégal foofu juum ngeen ngeen ne yàpp mbaam sëf la après ngeen ne xamoo yàpp lu mu doon bon yéen ñu wax loolu ngeen interpeller communes yi interpeller état bi cest dire yéen li ngeen di dund. dundu seytaane la yéen yàq askanu Sénégal moo leen tax a jóg li ngeen wax daraamu ci loolu moo waral coow li lépp am ñu ci oo nag askan bi di leen yee pour que responsabilité ñu mën ko situer looloo waral man dama def un plainte contre le grand réseau mafia ba pare cité leen muy nga xamante ne mu ngi ko seex ay agent yi nga xamante ne ñoo waroon régler problème bi muy ay agent ministère de l'élevage ñu chargé wu abattoir yi ak Sogas ak mairie de la ville de Rufisque ak mairie de la commune de Rufisque Ouest ak ay boucher yoo xamante ne ay responsable lañ am nañu ay représentants ci dara yi ñoom ñoo constituer réseau mafia bi ñoom ñooy présenter obstacle pour régler problème mu abattage clandestin problème mu vol de bétail monsieur le procureur ñun nee nañ la lii dafa nekk une atteinte à la sécurité des éleveurs et des consommateurs Thank you.